Hallo, assalamu alaikum. Hallo, hallo. Hallo, naka suba si asalaamaaleykum na ngeen def tey Gambian olof laa bëgg a wax tey moom Gambian olof lay wax I don't know why I'm in the mood ma wax Gambian olof tey tey Gambian olof lay wax guys <coughs> man sax dama nama Gambian olof géej naa wax Gambian olof la illa non dama gëjee wax Gambien olof bi nga xam ne déggaatuma ko sax naka na ngeen def dama dem dafa fu ma dem waaye ma ne xaaral ma vlogale tuuti because ma eggee foofu noonu duma am time hallo na ngeen <laughs> naaj baa ngi génn di bot it's cool dafa sedda ba léegi tey moom Gambian Olof laa bëgg a wax guys Gambian Olof Gambian Olof la ñooy wax tey naka suba si baa fu ngeen nekk seedut man fu ma nekk ni tey dafa seeda but it's not that bad waaye dafa seeda daf doon sunu démba barki démba si guddi ak barki démba yëpp démba sax sunu na tuuti waaye taw bi moo ñëw génnee sunu bi yëpp raxas ko set wecc mu ngi am some ice in some places but not too bad naka seen friday tey Gambien olof lay wax tey guys Gambien olof lay wax waaw tey Gambien olof lay wax dañooy wax yi fi love <clears throat> dafa am fu ma dem te su ma eegee fu noonu du am time te xam naa du ma am time pour def vidéo tey sax topic duma ma am time after this damay my business mu eggee fu may dem soo ma ne xaama ñoo ñu waxtaan <clears throat> because dee ma defuma live video <clears throat> oh my god suma dina bi <clears throat> suma dina bi guys so tey dama bëgg ñu waxtaan si Gambian Wolof guys xam nga lu ñooy wax mooy yëfi love suñ sista boobu noonu tudd Jawara Jawara maa ngi waxaat fana fana suñ sista boobu noonu tudd Jawara Jawara dafa am heartbreak ndeysaan mu ñëw live doon ko explain pour nit yi jàng si <clears throat> ak jos génnee stress mu ne dafa stress dafa bëgg génne génnee stress am bi xam nga rek wax na dëgga yombut te ñun ñu nekk Europe fii ñun ñu bari suñ stressé <clears throat> duñ dee bëgg a call suñ yaay di ko explainal <clears throat> xam nga because bëgguñ koo ko xam ne ñu ngi stress suñ yaay yi soo léegoo léeg ñeneen dañ day ñëw rek wax si internet bi wala soo amee xarit booy waxal te ñun ñu si bari ñu dee def vidéo ñun ñu dee def vidéo ñun ñu bari amuñ vidéo amuñ ayam best friends yu ñooy call that's the reality because soo nekkee si vidéo yi lu bari daf dee xaar pour nga am koy trust koo xam ne di nga mën a waxaa ah, moom sa soxla because nit yu bëri dañ dee use the fact ne yaa ngi si vidéo yi suñ nekkee yow friends soo leen waxee dara dañoo dem ñuy wax ñeneen nit yi sa problème even soo nekkul si vidéo sax so because community bi nit yi dañ dee wax problème yi nit daf dee tax ba nit yi amuñ best friends nit yu bari léegi amuñ best friends ku ñoo tros ak seen yeneen problème yi loolu mooy dëgg bi because nit yi dañ dee ragal nit yi because nit yi yee laayigal leen ma vidéo bi te te Gambien olof lay wax you know because nit yi dañ dee ragal nit yi because nit yi soo leen waxee sa problème dañ dee dem ñu wax ko seen beneen friend you know so daf dee tax léegi nit yi ñu bari amuñ best friend ba pare ñun ñu dee nekk si vidéo yi di wax ñun ñu bari amuñ best friends because ñun ñu bari dañ conscious what's the English word conscious dañ eewu suñ mind bi dafa eewu dañ xàmmee yu baax ak yu bon yu nekk si community bi yëpp soo dañ dee moytu sax ban nit la ñooy def friend te ñu ñu si bari ñu nekk si vidéo yi dañ dee am yeneen jikko yoo xam ne àndut ak yeneen jikko community bi because community bi dañ am yeneen jikko naa féexa ak fen yoo xam ne ñun yu nekk si ko si ñu ñu si bari dañ jànga ñu xam ne jikko yooyu noonu baaxut soo duñ dee bëgg a am façon yooyu noonu ñu si bari yu nekk si vidéo yi amuñ sax ay best friend yoo xam ne dañoo nekk di koolantee gaay ñu si bari dañ independent te dañ dañ miin di nekk ak ñun keena soo xam naa loolu moo tax mu géena ñëw wax lu ko naxari si si vidéo bi lu nga xam ne loolu la ko góor boobu noonu def sista jawara jawara muñal muñal waaye gis nga man manaa naa yow day war a jànga suñu nit yi waxee yéena yi ne ñu déglu ñu jànga pour ñu déglu because yow wax nga ko sa vidéo bi nga ne góor yi wax nit yi waxoon nañ la sa xarit yi soor yi waxoon nañ la ne nga moytu góor boobu noonu nga bañ nga bëgg a koo may chance man tam dama dee def loolu de waaye léegi dama dee déglu de dafa des lan la su dee yëfi loof la su ma nit yi waxee ni ñu bari si ma waxee ami ami Jóob moytul góor bi dinaa déglu waaw dinaa déglu because jigéen yëpp duñ boo a fen waaw man bu ma waxee ne góor boobu noonu ah bu ma waxee lu mu doon def di dugalante beneen jigéen boobu noonu at the same time ak yow waxoon naa ne bàyyi ko man du ma dee waxtaan yow all the time de waaye keroog foog naa keroog sax mooy buñ ñu amee propos wax keroog rek la waxoon naa la ko may la oytul góor boobu noonu foog naa waxuma la bàyyi ko atool waaye dama ne oytu ko nga check nga teg sa time ak moom because su mu nee def lii mun naa def lu ko ëppa nit ñu bari dañ la dee won seen jikko tubaab yi wax nañ ko nit yu bëri dañ la dee woon seen jikko ñoom ñooy kan yow yaa dul déglu Oprah wax na ko Oprah mu ne lu tax ñun nit suñu nit wanee jikkoom duñ ko déglu duñ ko jël lu ñu nit ki won duñ ko jël dañoo continuer di yaakaar ne ni kooku noonu dina baax ni kooku noonu dafa baax di jaay positif yéen a positif yi du positif de naïf la man sax loolu dal na ma ba soona man loolu dal na ma ba soona léegi moo tax ma soona léegi dama bàyyi léegi su ma nekkee góor su ma gisee ne góor bii nii nekkul di ma won loo xam ne nii yaakaar naa dama daw su ma yoon nekku fa gis nga man léegi su ma demee ba sëyaa góor sax sëy laa wax su ma góor boobu noonu wanee loo xam ne yaakaaruma ko dama daw xaa ma toon caméra bi sax ngeen gis ma maa ngi ni di waxaa yéen naaj bi su nekkee suma gannaaw du ngeen a mun a gis maa ngi nii dafa am fu maa dem tubaab bi xam naa ñu ngi maa xaw seen moto nañ wax ne wat jayal jigéen bi xanaa wàcce bees la xam ngeen naka la jànxa yow bul tiit bul jooy bul mer jànxa jawara jawara yow di nga am góor bu gën góor boobu noonu jawara jawara jànxa waxoon naa la ko ma ne la ne yow jigéen bu baax nga te rafet te am fayda waaye danga nga war a moytu sa yéen a feeca yi ak sa yéen a wax yi dafa tax góor yu baax yu am fayda yi dañ laa ragal jànxa waxoon naa la ko man na sama gémmiñ bi daf ma dee dugal man dama dee advice nit benn kii foog ma ennemi man suma gémmiñ bi man Amie Jobe rek si bëri wax ak mu na advice su ma sañoon ñëpp am jaama man suma ko amul sax ñëpp am ko wax naa la ne sista Jawara Jawara yow ku la gis bugal la daaxul benn jigéen daaxu la te yaa ngi am sa fula sa fayda waaye sa yéen a waxtaan yi ak sa yéen a feccee dafa tax góor yu baax yu bari ragal la wax naa la ko woon keroog si téléphone bi ma la advice comme suma bon sista parce que loolu sa is not easy nga wax ko nit koo xam ne yéen a ngi def vidéo dafaa ñëw foog ne yow danga koo jalas walla nangam wala dan koo contrôle waaye dama ko risque moo wax la ko mu jógee suma xol bi keroog bu ma waxee yëf yëfi góor bii nii beneen jigéen bu doon nekkaal di après di nekkaa yow at the same time di fen ma ne la bàyyi uy bàyyil góor bi soo ko mënta bàyyi right now sa bàyyi ko xel te nga def nga wécci yeneen wax yi nga dee waxee ak yeneen fecca yi nga dee fecca soo ko wéccee tuuti di nga am góor bu baax ma ne la ne góor yu baax yi dañ laa ragal soo behave certain way ma ne la ne man soo gisee ak lu ma sey téeméeri yoon ak su ma jikkooy ridiculous comédie yëpp soo gisee góor yu bari di ma dee toppa ñoo xam ne am nekk nañ góor yu baax man maa dee ragal rek waaye right now fu mu jaaree ma sey right now moom fu mu jaaree ma ignore ragal bi ma sey waaw this year the next few months even fu mu jaar ma choose benn si góor yi parce que ragal bi soo ko toppee doo sëy waaye man góor yu ma dee toppa waxuma ne ñëpp baax nañ de waaye na ma ne am na si ñu baax dañ dee ma mayen góor yi dee si vidéo yi waxuma yooy de man góor yi ma dee toppa di dugg si vidéo yi ñooñu taxuñ may wax góor yi dee dugg si vidéo yi ñu bari suñ nekkee baax tam xam naa ne bariwut góor yu baax yi dëgga dañ dee rusa dugg si vidéo di la ciis dañ dee dañ ma dee toppa jël suma namba suma ko poose ma la ñu toppa ma from Instagram bala Facebook binda ma call ma amaa man contact dañ dee nekk góor yu baax yu di seen di wax dëgg ñeneen ñi dañ dee nekk very quiet dama leen dee test different area ma ba ma xam ne ñii dëgg dëgg su ma sëyoon ak ñoom dinaa am jàmm moom naa dee ragal rek moo tax léegi moom damaa close ma eyes rek ma dem ma ne la soo gisee góor yi di ma dee toppa because of dañ dee gis ne Ami Jobe du dee daf dee xala moytu lu mooy waxee wala nu mu dee solo ak nu mu dee feccee loolu rek dañ ma ko dee wax saa ma koolee dañ ma ko dee wax moo tax ma advice la ko because I love you moo tax ma ne la sista Jawara Jawara moytu sa yéen a fecce yi ak sa yéen a wax yi dafaa tax góor yu baax yi ragal la I told you this góor yu lay ñeme mooy góor yu rancang yi that's the reality sista Jawara Jawara am sorry ku la ko waxut bugut la ku la ko waxut bugut la nit ñi léegi dañ la dee jayit dee hypocrite duñ la wax dëgga ida ñoom seen boppa dañooy def lu ngay def au moins or they just hate you duñ la wax dëgga because nit ki léegi ko waxee dëgga mu def la ennemi ñun tam lii mooy suñ problème lii moo tax ñëpp di fake ku la ko waxut bugut la sista jawara jawara ku la waxut bugut la te yow ni si dañ laa fekka fekk meluloo noonu waaye because dang day nekk di explain yëfi sexe very raw ba góor bu lay déglu di siit tubayam bi di siit nga naan leen yéen a ngee jàmba seen koo yi nangam dangay tax nit ñi ragal la sista jawara jawara am sorry I love you moo tax may waxa ak ni nii laay guma ko nu nga ñëwee si vidéo bi di explain góor googu noonu lu nga dunda su ma sañoon doo ko dunda dégg la soo deful loolu sax soo deful vidéo yooyu noonu sax mun ngaa am góor bu bon loolu moom dégg la bu bon dañ day ñëw si innocent nit yi xam naa ko waaye dama laa wax ne soo bëggee am bunch of góor yu baax yi di la attaque ba yow ngay cuus ngay doo xam koy cuus fu mu jaar nga ceeñ li ngay defee ay su wetu ala ku la ko waxut bëggut la parce que ni ngay defee soo fekkee ne góor ñu lay toppa gis nañ la sa vidéo yi hmm? ñu bugg a laa cees duñ dugg si live vidéo bi di wax sax dañoo binda try binda la Facebook wala Instagram wala something you know waaye yow internet bi mun nga see am góor gu baax soo waxee da am góor from the outside internet mun naa possible but it's not easy parce que yow internet bi fa nga dee nekk every time yaa mën a am nit la dee gis te bi nekku ne fa nekk yëpp a bon non yow soo fa nekkee di wax te xam nga ne yow bono kon xamal ne ñeneen góor yu baax ñu ngi fa internet bi am na nit yu baax nit yi yëpp léegi si internet lañ dee dem di entertain seen boppa di seetaan vidéo it's not like internet ñu fa nekk ñëpp a bon kon xanaa ñun dañ bon ñun ñuy wax come on that's the reality internet bi léegi président yi sax dañ ko dee am ak ministre yi ak everybody imam yi sa nga naan la so yow sa bopp yaa war a xam nu ngay defee nit ñu bëri ñoo di am jëkkër yu baax ak jabar yu baax si internet bi that's the reality facebook ko anyway nit gis leen bugga leen taka leen te dañ dee am jaama come on sista jawara jawara su fekkee yow jëkkër bu nga am nekkul si internet bi sax dina la gis déega sa mbir nu ngay waxee tax mu ragal la that's the reality sister Jawara Jawara ku la ko waxut bugut la I'm telling you this am sorry man na suma géem bi daf ma dee dugal waaye gis nga lii du pour yow rek pour ñun ñëpp ñu jànga si la sister Jawara Jawara fu mu jaar nga moytu yeneen wax yi nga dee wax si vidéo yi soo buggee am góor bu baax ak yeneen fecce yi nga dee def fu mu jaar nga moytu ko soo buggee am góor bu baax xanaa nga uti tubaab soo ko bëggee am si suñ nit ñi surtout ñun suñ niti Gambie ak senegal fu jaar nga oyut nga wecci nit ñi dañ laa ragal te fekk meluloo noonu am soori xanaa nga uti tubaab wala beneen xeet te even tubaab bi ak beneen xeet sax ndax ñooñu baax nañ because yeneen even yeneen tubaab bi sax duñ bëgg a yoo loolu noonu seen jigéen di ko def di fecca yeneen fecca ak wax yeneen wax yi that's the reality come on aduna bi léegi am na nit ñu baax waaye bariwut te nit ñu baax ñu bari léegi dañ dee extra careful ñoom tam ñu extra ragal sista jawara jawara imagine yow soo amoon góor boo xam ne mu ngi ñëw si internet bi di fecce yeneen fecce yi ak a wax yeneen wax yi ndax yow di nga bëgg a góor boobu noonu man de duma ko bëgg a nañ waxante dëgga please am sorry sista jawara jawara xam naa nit yi nañ la Ami Jobe mu ngi lay defal vidéo man defaluma la vidéo dama la loof lay suma sista bëgguma gis la nga ñëw di jooy góor bu bon boobu noonu def la jikko ju bon jum la def noonu di saaf moo dan dat waaye until nga change yeneen wax yi nga dee wax ak yeneen fecca yi nga dee fecca façon yi góor yi rek ngay am ay swear to God góor yu baax yi la nopp yëpp dañ lay ragal ay swear to Allah man dañ ma dee ragal ñoom ñu si bëri because lu ma dee wax ak power you know ak you lay hmm, ak lu ma dee am fit pour wax lu ma dunda you know dañ ma dee ragal si loolu ñoom ñu si bari hmm. dañ ma ko dee wax waaye ñu bari duñ ma dee wax loolu duñ ma dee ragal luñ ma dee wax mooy I love you because yow da nga dee solu solu bu ma coot di wax de di oytu nooy waxee doo dee nangoo wax yeneen waxi wax yu bon yu ëpp yi ba pare doo dee nangoo feccee yeneen feccee wala solu yeneen solu yi loolu la ma góor yu baax yi ma dee toppa yëpp di wax ñu si baax laa wax ñoo xam ne danga nga dee xam ne kii góor gu baax la ni ngay waxee moom ak nu muy defee te dañ la dee toppal lu yàggal lu ëpp wan yat duñ ceeñ te dañoo dem liggéey waaca julli toog si kër gi amuñ benn problème amuñ dara lu ñoo def dee noot xay di nattin nekkuñ si ay tuux ay fen ay lifin lu nekk tam doo ko dee xam nuróowuñ ko de difference ñu ma si dee topp be du ma dee xam kan lay choose over the years loolu mooy dëgg gi ragal rek moo ma tërësee over the years te di siya fu ma jaar ma siyaat noonu ma tawat du ma continuer ragal bii nii waaye sister Jawara Jawara I love you Allah is my witness su ma fenee yàlla bu ma egga fu may jëm su ma duggee si boos bi yàlla na boos bi koppoo man ma dee si yoon bi I love you I'm talking to like a sister billahi sister Jawara Jawara feek yaa ngee def sa yi ngay def hmm? xamal ne doo mun am góor bu si community bii nii xaw ma kañ lay nekk xanaa yàlla defal la miracle si community bii ñun laa wax de billahi wallahi talaay ku la ko waxut bugut la su fekkee ne góor bi mutiloo ko si internet bi sax da nga ko mit outside of internet sax sa vidéo yi daf la koo yaaxal billahi wallahi talaay ku la ko waxut bugut la maa la ko wax sista jawara jawara ku la ko waxut bugut la comme nu ma la ko waxee woon si whatsapp bi noonu laa la ko waxatee tey ku ko waxut bugut la wala dafa hypocrite wala ñemewut laa wax dëgg gi lii mooy dëgg gi sa jawara jawara bul woori si ba abaa góor boobu noonu jikko ji bon jum la def noonu yow mën ngaa am ku ko gën waaye fu jaar nga moytu yeneen wax yi ngay waxee ak yeneen fecce yi ak yeneen vidéo inappropriate vidéo yi nga see react yeneen yeneen inappropriate reaction that's the reality nit laa jooj ragal la ku la ko bugut la dafa naa feexa boos baa ngi ne la boos bale laa war a dugga te man ma taxawee boor bi di bëri wax wuy yaay wuy yaay wuy leen ma daw dama fàtte ne dewuma town opposite side bi laay dem dama ko fàtte sax hi that's two pounds single place Thank you. billahi sista jawara jawara ku la waxul li ma lay wax nii bu gudd la walla fan naa feq mbala moom ci boppam fa xame ay jikko yu bon di ko def moo tax ñi ma wut laa wax li ngay wax ni nga li ngay def ni nga ba ko barki salaatu faatiya man I love you like I love myself lu ma yéene sama bopp laa la yéene moo tax may wax ak yow man su bokkoon ak yow ndey ak baay nii laay waxee ak yow wala lu ko raw laaj ma sama famille bi man du ma bëgg nit ba fenal ko moo tax xarit sax du dafay xaar am ko xarit boo xam ne dafa bëgg a fake friend du mën a nekk ak man xarit kuy fake it bu mu nekk ak man xarit ndax man bëgguma xarit boo xam ne daf may fake gi nga man suma vidéo yi loo xam ne xóor na ne Amie dafa war a wecci lii su bëggee xam jëkkër ju baax ñëwal wax ma ko sista ndax man vidéo yi gën a lut ma jëkkër ju baax vidéo yi may def gën a lut ma jëkkat ju baax toog sëy su ma xamoon jëkkat ju baax tey toog du ma ne ci internet bi guddee bëccëg ak a wax yenn wax nit ñi di ma jooj si ngelaw fa free mel ni ko def xalaatuma ko su may ñëwit may ñëw wax wax yu correct yoo xam ne su ma jëkkat du si met luy dimbale nit ñi mbala su may waxtaan ma waxtaan rek waaye du ma wax yenn wax yoo xam ne sama jëkkër daf si mer ba suma sëy bi tas sëy bu tas ngir vidéo sa sëy bu tasee ngir lay jaale nga toog ci vidéo yi duñ la mën a héeg bu guddee la héeg nooy de bu dee nooy de di làmbatu di cot-cot yi raay sa bopp xam vidéo yi neen du la mën a yéeg jëkkër xam nga ko vidéo yi neen sister please ay love you moo tax may wax ak yow te ni nga ñëw wax wax sa problème bi ci internet bi ni ci vidéo moo tax may wax ni nga ñëw wax li la góor gi def ci vid live bi moo tax ma nit ma dikk di la waxal ak loof ak yow ak man ak ñun ñëpp ñu jàngee si lii sister waxoon naa la ko sa WhatsApp ba keroog bu yàgg nga foogoon ne may wax rek waxoon naa la ne feeg woo sa yenn wax yi ngay waxee ni góor ñu baax ñi fañ lay ragal góor ñi lay ñeme mooy ñu sañ ñu bon ñi góor ñu ràncag ñi te bon ñoo lay ñeme ndax yow ku lay gis sa jox sa yenn wax yi fa lay jooj das ta réalité fa lay ragal def la ràncang koo xam ne doo ko billahi wër kitaab yi lii mooy dëgg gi ku la ko waxul bu gudd la fañ lay def ràncang koo xam ne doo ko dem takk keneen koo xam ne moo la gën a ràncang <clears throat> waaye kooka duy waxee ni yow ci internet bi tax ñu ñeme ko loolu mooy dëgg gi yow tey soo gisoon jëkkër ji la bu ko takk te mu ngi ñëw ci internet bi di wax yenn wax yi ak a fecc yenn fecc yi ndax danga ko ñeme man de duma ko ñeme loolu mooy dëgg gi ñëwaat naa ci suma xolo fi li sax kaw kaw yi su may wax fay na rek wax xolo kaw kaw lii mooy dëgg bi doon woori olofi Gambia or not very serious very serious ñun internet bi vidéo yi lu mu neex neex nga taal sa vidéo wax lu la neex loolu fa neex parce que ñun buñ nekkee xale xamuñ woon freedom faj ñu tëjoon suñ kilifa yi duñ nangu ñu wax yenn yi luñ wax ñu dóor ñu ñu mag léegi xam freedom loolu tax ñun ñëpp ñu mel ni ci internet bi ñuy saaga ndey ñeneen ñi wax ak ñëpp ñun ñu si bëri nii lañ la even ñeneen ñi nga xam ne booy wax lu bon ñu ñëw di la support booy wax lu baax duñ la support ñu ñi ci ñu bon ñi lañ bokk fañ wute jikko rek ak ñun ñuy wax wax yu ñu ñu nit ñun ñëpp ak ñoom a xem mhm. ñoom it fañ xam freedom fi ne te seen freedom bi mënuñ koo defee lu baax moo tax kuy wax lu baax duñ la support kuy wax lu bon ñu support la ñoo ñit fañ feebar feebar yee wuute gi nga ñun freedom biñ xam te mosuñ koo xam bañ du xeegu ne ngir seen kilifa yi fañ ñuy dóor di ñu xilif tuumaj moo tax léegi ñoo am freedom buñ ko oytuwut hmm. internet bi boo ciy wax yenn wax ka def yenn yëf yi nit ñu baax ñi fañ lay ragal duñ la ñemee takk ci ko nit ñu baax ñi ci communauté bii xanaa nga xanaa nit ñu baaxee Chinese wala tubaab te ñuñ sax duñ ñeme nit ñu baaxee Chinese wala tubaab sax buñ demee ba xam li ngay wax ba gis ko nga di ko feccee noonu di joxe gannaaw di yëngal wa nga ko yëngal ndigg ni koy laalante duñ la ñeme das da réalité ku la ko waxut fa la bañ te naa fekk ku ma ci wax ne Ami Jobe warul lii fa naa fekk te soxot li ma lay wax nii bu ma bokkoon ak yow ndey ak bàyyi wala ma jut la moom laa lay wax ku la wax ni ku ku ko weddi fa soxta naa fekk su fekkee ma laa bañ moo tax may wax yàlla na boos bi këppoog man léegi ci si digg live vidéo bi ngeen gis ko yàlla bu ma xegg fu may dem li ma xéene sama bopp laa la xéene moo tax ma di la ko wax suñ community bii bu ci xalaata xam góor gu baax su fekkee yaa ngi def yenn fecc yi ak yenn wax yi ngay wax daf nit ñi fañ lay ragal sista jawara jawara lii mooy dëgg gi ku la ko waxut fa naa fekk mbala muy def lu raw loolu di ko def ci gannaaw vidéo yi sax boobu looloo raw vidéo moo tax du la mën a wax dara mbala mu bañ la dinaa fekk mbala mu bañ ma rek man tax mu naan Amie Jobe waru laa wax loolu yii a tax borom di ko wéddi waaye yii bu xamul borom dana la wax ne Ami Diouf la mu wax dëgg la dafa la bugg community bi yow jigéen dàqul la te nga xam fulla ak fayda te rafet waaye sa wax yeeg sa fecc yi fay tax nit ñi ragal la suñ waxee nga ne meluma noonu kon boo melut noonu defal ni ko melut noonu loolu mooy dëgg gi fekk yaa ngi koy def fa ñuy wax ne noonu nga mel di ko weddi te fekk meloo ko fa daw yaram waaye lii mooy dëgg gi please xaw ma lu tax nag nga ne mukk lii ko ba xaj yi nii ngay def depuis Facebook xaj yi yëpp nit ñi di la ci saagande ak di golo gu lakk gu ne du lay di la yeb koo xam ne yaa ko tane sax di la yeb nga ne mukk doo ko ba sa fecc yi leeg sa wax yi leeg xaw ma nattu la xaw ma fa mel ni ab nattu bi la yàlla teg la nag kon lii boo nee doo ko ba kon de lii nattu la ndax lii du dëgër bopp yenn dëgër bopp yi nattu la mhm. nañ waxante dëgg ndax yow jigéen dàqu la yaa ngi amee sa doom yi di liggéey jàpp sa fullaak fayda waaye sa yenn wax yii nga ràngoo xat yii yëpp depuis Facebook ne mukk doo ko ba ak sa yenn fecc yi ak sa yenn jëfin yii feek baxu ko bi góor gu baax ci communauté bi du la ñeme góor ñu baax ñi ñëw yëpp a ñu ñëw pour yuus la mbala ñu nekk fa ñuy féeg seen baaxaay fa ñu koy féeg góor gu bon lañ moo tax ñu ñeme la góor gu baax fay ragal jigéen ci jëfinam comme yow ni ngay ragale yeneen góor yi seen jëfin come man sax tey su ma gisoon góor gu ñëw si internet bi di wax yenn wax yi ka fecc yenn fecc yi du ma ko ñeme surtout jigéen jigéen la garam gën a yomba yàqu jigéen la deram gën a yomba yàqu sista jawara jawara ngir yàlla yonent ba comme nu ma la ko waxee soo gisee ma ñemee ñëw di wax lii yow laa gis nga ñëw wax sa live vidéo bi ci àddina si nit ñi gis ko moo tax nga wax góor di torox bu mu la toroxal nga def ci ñaari vidéo gis naa ñaari vidéo yi moom ma may fit ma nit ma ñëw waxal la jël jëlee ko suma xol bi daw na yaram gis la ngay jooy ak wax coono bi nga def ci góor gi ak ni nga ko buggee góor ak Gambien góor ak góor ak soose góor ak Sénégal lee ci xem community bi góor ñu ci baax soo xeboo kon nga noppaliku ci ñëw duñ la ñeme ñu bon ñi rek kay ñëw di féeg baax ñoo lay ñeme because ni ngay def la feeg baxu ko ñu baax ñi fa ñuy xool bugg la di la yundu di la xool di la bugg di la yundu duñ ñemee wax ku baax ku la xam feneen fu dul internet yi bu demee ba xam li ngay def ci internet bi ragal la fekk yow noonu meloo ko bay wax na it boo xamee sañ bay wax lii ak a def lii yow la nga koy def moom bu la takkee moo raw loolu fekk du loolu vidéo yu bon lu bëree ci ne de gi nga man boo gisee may yar sama bopp xat yi yëpp communauté bi nag ku leen topp doo yar sa bopp gisoo vidéo bu ma bu ma problème bu ma xam ak alpha bu yàggul nii ba ma dindee vidéo ba ñëw di def vidéo di wax nit ñi ne waruma woon a wax ak alpha ni ma waxee moom moom it warutoon a wax ak communauté bi ni mu waxee fa xam ñu may bindal di ma woy ragal communauté bi fañ naa fekk te soxot naan ma ngaa ragal kay yow kay waxal ne Alpha li mu wax ne fa lay liggéey moo tax nga ragal man dana ragal nit man Ami Diop ma laa niru ko ragal ku ragal dana dana lekk dana ñëw di lekk ci caméra ci kanam nit ku ragal dana wax nit ñi lim dund communauté bii nga xam ne xaste rek lañ man ak jëw faale wu ma nit ku faale nit dana ñëw di wax nit ñi lim dund every day faale wu ma waxi ak nangam as long as man xam naa ne li may def néew di ma yàqal suma bopp ak a yàq suma doom yi ak a yàq suma communauté ak a yàqal ma suma ëllëg man li ma dund ma koy bind si bug bug bi su paree àddina si danañ ko jënd ndax ma koy def pour jàngal nit ñi ne soo dundee lu méttiit war ngaa mën a gëm sa bopp te def sa bopp nit noo ma tawat ngay yar sa bopp moo tax ma ne di yar sama bopp xat yi yëpp ak wax nit ñi pour yar bopp ak wax nit ñi pour faj métit nangam nangam looloo tax kon nag man loolu dafa wuute duma ko bax waaye kuy sañ ci communauté bi may sa maam war ngeen koo xam moo tax may def yenn comédie comédie yi may def li may wax ma di ko wax waaye may oytu de defu ma de sañ mi duma nangu mu yàqal ma suma àdduna ba tax duma mën a am góor gu baax ëllëg may moytu ni may waxee yenn waxe caay-caay yi boo gisee ma di ko daw aka daw yenn façon yi fecc yeeg yenn façon yi jëfin yi maa ko tey maa ko xam xam naa ne su ma koy def gune yi fa ñuy jóg di ma toppandoo di ko def ba pare fa may yàqal lu baax gune yi communauté bi fa ñu jóg di ma toppandoo di ko def pare fa may yàqal lu baax man xam naa ko moo tax duma koy def su ma neexoon ma def ko bu nit ñi waxee ma leen maa tey get to ku wax ma ne la nga maa bañ ku wax rek ma ne la nga maa bañ waaye loolu su ma ko defee su ma bopp lay yàqal ak gune communauté bi bii bi jóg di ma toppandoo suma doomi mbokk su suma doomi bopp yi man nañ koo def ñëpp rek yu noonu sista jawara jawara ku la waxul ne sa yenn wax yi ci vidéo yi nga ko war a ba fa la buggut dafa naaféq parce que salaatu faatiha su ma fenee yàlla na boos bi këppoog man ma dee bu ma yegg fu ma jëm ku la ko waxut fa naaféq te te buggut la bala mu ragal a wax dëgg feeg yaa ngi def ni ngay def xamal ne góor ñu baax ñu ci communauté bi danañ continuer di la ragal góor ñu sañ ñi te bon góor gu bon fay sañ du du ragal benn jigéen parce que moo raw jigéen ja ku mu xam nga yow par exemple ku la gis di la ragal wala gis Ami Jóob di ko ragal waaye yow soo melee nit soo soo ma rawee man noo may ragalee góor gu bon li tax du ragal jigéen mooy moom jikko ji muy foog ne moom la jigéen ji xamee ju ko raw la amee moom ci boppam moo tax du ragal borom yow ku la gi ragal la te fekk meloo noonu sista jawara jawara man fooguma ne noonu nga mel sista jawara jawara ku la gis ragal la te yow meloo noonu man inside ku ma tegal kaamil mën naa xaw waat ne yow meloo ni la nit ñi ragalee mën naa xaw waat ne yow man de maa foog ne jigéen ju baax nga te clean te du duwoo jigéen ju ràncan ji la ji sa vidéo yi di def waaye yaa koy def sa bopp moo ma jaaxal te suñ waxee nga naan meluma nii tiktok bi pour foon rek la foon ak yenn wax yi fa wuute te nga dëkk ci xat yi yëpp ne doo ko ba di wax ba góor gu lay seetaan tubayam ja tooy di cot coti nga naan seen tubéy yaa ngi tooy xam naa yéen a ngi koy jàmb waa acca leen enjoy leen he sista jawara jawara ku la waxul li buggul la ngir yàlla ak rasulullah sista jawara jawara baal ni ngay def soo buggee xam góor gu baax ci community bii ak soo buggut a yàq gu ne community bi it boole ci fañ lay toppandoor ndax yow sa doom ju jigéen jooju tey bu magoon bës caméraam di wax li ngay wax noonu ci seen làkki jaamaan yi na dana la neex man de faatu bu ko defoon ma ji di wax ba naan góor ñi ku ca tubéy ji tooy na ko jàmb su ma yoon néewu ci sa tubéy ji bu tooyee jàmb ko léegi tey ngeen daanu jàmb leen te daanu lu façon bu ne rekk fa xëpp te jéggi dayo subhanallah man maa ko ne di wax sax <laughs> barki salaatu fatiha sista jawara jawara man gënuma la man mii suma vidéo yi fa ñuy ëpp jéggi dayoo fa ne rek fa doon rek ni ma koy defee wuuteeg sa bos is not like maa la gën moo tamay wax non gënuma kenn suma vidéo yi fa ñu te jéggi dayoo man ci suma bopp xëppaay beeg jéggi ay dayoo bee wuute rek xam naa ko waxuma ne man maa la gën wala you know wala man am good no <laughs> I swear to Allah it's not like that waaye maa bëgg nga xam ne feeg ba woon ni ngay def góor ñu bax ñi fañ lay ragal you have something sister Ami what something bëgguma ngeen dugg fii di wax balaa moo foog ne man ma koo defal vidéo nit ñi ñëw di di wax man man ma koy waxal comme kuy waxal suma sista ndax fa ñëw ci vidéo yi di jooy di wax góor gi góor a gambien gi nu mu ko sonnalee góor a gambien gi mu xamante nii ki mu waroon a séyal bu ko yàlla dogalee fa ko jàmbu def ko jikko ju bon góor gu bon la tombeel daal góor ga ci boppam góor gu bon la la tax góor gu bon googa ñëw ci moom mooy jikko ji muy def moo tax nit ñu bon ñi ñeme ko gi nga jigéen xam na yenn jikko yooyu def góor ñu bon ñi danañuy ñëw de waaye du bëri bañ lay ragal xam nañ ne you yow xàndoo ak ñoom ba pare ñu baax ñi ñoo lay ñooy bëri ba nga xam ne su soo si jëlee kenn rek su la yàlla dimbalee kooku dana nekk ku baax parce que jikko ji ngay def mooy tax ñu baax ñi ñeme la di ñëw ñu bëri ñu baax man fi mu ne nii góor ñu baax ñi ma taw xam naa ne xam na si ñu bon waaye bëriwul seetlu naa leen gis naa niñ mel ñoo xam ne leen kenn xamul leen si communauté bi sax te baax te soo te teey te yaru te baax te di la won loo man maa dee ragal rek xat yi yëpp waaye soo gisee ñu di ma ñeme benn wax lañ may wax ne yow sa vidéo yi soo gisee ma like la yow mooy sa vidéo yi da nga dee oytu yenn waxi cagay doo ko ñemee wax yenn fecc yi doo ko def yenn sol yi doo ko def ku la gi xam ne jigéen ju baax nga loolu lañ may wax ñëpp moo tax ma ko oytul te fekk mën naa am sax yow yaa ma gën waaye ni ngay feccee aka di ko solo aka di ko waxee ba góor ñi cot coti nga naan leen su ma yoon néew ci jàmb leen seen bopp te ñëw ha góor ñi di la déglu di jàmb seen bopp di ñëw loolu du la indil jàmm du indil communauté bi jàmm fañ lay def xaj te fekk du ko ku la ko waxut bu gudd la sista jawara jawara please I love you moo tax may wax ak yow te yow ngaa dikk ci vidéo yi wax li la góor gi de àddina si dégg ko moo tax man nit ma xam fiti dikk di la ko waxal àddina si dégg ko ak yow ak ñeneen ak mana ak ñëpp ñu jàng ci ñun ñuy wax ci vidéo yi yëpp nañ jàng te xam ne suñ deful suñ bopp nit surtout ku ci xamul jëkkër fa lay kale doo mën a am jëkkër ju baax te vidéo jaru ko vidéo yi duñ la mën a xëy guddi doo ci mën a jàmm yàlla doo mën a wax ak ñoom doo leen mën a fóon doo leen mën a raay vidéo yi neen rek la jaru baxal ni ngay def ci yenn vidéo yi sista jawara jawara ngay tax ku la war a yab yab la bu doon mbiri jëkkër sax ngay tax ku la war a yab yab la ku la warta yab yab la te fekk yaa ko gën sax mu yab la jaru ko su la tiktok doon fay ay junni sax jaru ko kamoon yaa ngi xamee ay doom xamee sa bopp xamee sa liggéey xamee sa néeg golo gu lakk ci daay gu ne di la yeb ngir yenn wax yi ngay wax jaru ko community bi fañ cagataxaay dal leen bu leen topp ñoo lay wax ne li ngay wax ngay jàngal nit ñi laalante kay li ngay wax kay baax na jàngale la xam nañ ne fa baaxul ku leen fayoon million duñ ko def nañ ñëw jàngale ko ku leen fayoon million duñ ko def ndax xam nañ ne baaxul seen doom yi di leen gis seen doomi mbokk yi di leen gis seen famille yëpp di leen gis ñuy wax wax jooju duñ ko def ñu tax ñu di la ko def loo fañ soxot tax a ñaan communauté bi saa way def loo xam ne ñoom bu leen fayee ay million xoj leen duñ ko def ñu ne la is good jàngale la su dee lu bon la mbala ñu ne la happiness dundal sa laay fañ naa fekk te soxot doon geeku la ko wax barki salaatu faatiya ndax borom boo ko doon xoj sax du ko def boo ko noon def ko mbaa ma xoj la nga dee mu nga ko mu dee ko def kon baaxul su baaxee konoon lu tax du ko def xamee ko noonu bu ko wooyee caga xama koy wooyee caga duut caga wax yi muy wax rek la waaye taxu ne fa bon ci fanfaro caga gisoo nit ñi di ko fay di ko yéeg bu ko wooyee caga ngaa yabaatee lii lay wax dégg nga ko fa ñuy ñëw di la yab góor ñu baax ñi lay yóndu bëggu la di la ragal nit ñi nga xam ne fañ lay xamee feneen fu dul ci vidéo yi buñ la buñ ko gisee nga di ko def ñu ragal la fekk ñu ngi la bëgg a takk ñu baax ñi ñëpp rey ragal tout ñi la ciy ñeme mooy ñu ñu sañ ñi te bon góor gu bon du ragal jigéen comme jigéen ju faalewul boppam it te bon du ragal góor lu góor ga bon bon mu dugg ca ne fetek doonam du ca ne ku la ko waxut bu gudd la sista jawara jawara soore ku la ko waxut fa naa fekk mbala mu bañ la li ma lay wax nii képp ku la ko waxut fa naa fekk mbala mu bañ la bu ko sa yaay xamoon sa vidéo yi du nii lay waxee yow yow sa yaay ndax xamul sa vidéo yi sax moo a jaaxal saa yu ne ngay wax ne ngaa bëgg sa yaay man suma yaay nit ñi fañ ko jox suma vidéo bi ma ne bi may lekkee ci rek basé noonu ci suma ci suma TikTok bi noonu te boobu sax bonul noonu de bi may waxee ne góor goo xam ne fa lay takk ba pare guddi du bégal fay rek ci peelu ni ganaar ci sa kaw ni ganaar te yàlla waxul loolu yàlla fa ne nga won sa jabar mbugeel di ko jox soo koy jëndal lal ak ay néegi rafet it nga won ko mbugeel yi non something like that loolu rek laa wax de nit ña yëg ko suma yaay ba suma yaay naa ma oytul yaay ni ngay wax ni ko buggee xat yi yëpp man daf ma dee jaaxal man yow sa yaay ndax lu tax nit ñi joxuñ ko sa vidéo yi mu wax ak yow ndax fa wax ak yow faale ko loolu moom lu ma yàgg a jaaxal la maa la koy wax hmm, musuma koo wax kenn de musuma la koo wax yow waaye ma koy wax fii ndax sa yaay du gis sa vidéo yi ndax fa ko gi wax ak yow faale ko loolu dana may jaaxal de sista Jawara Jawara ngir yàlla sa yaay bu gisoon sa vidéo yi ni ma koy gisee li ma lay wax la lay wax de no way sa gis ta vidéo yi du la wax li ma lay wax nii ku yow ndey ak des no way gis sa vidéo yi wax ak du wax ak yow ni ma lay wax ak waxee ak yow nii kooka du xam xanaa ku la mala mu ragal la sista Jawara Jawara man I love you comme lu ma yéene sama bopp laa la yéene moo tax wax a yow anam sorry gënuma la suma vidéo yi moo gën a jéggi dayo sa yéen sa vidéo yi su ma yenn comédie vidéo yu ridicule si wala su ma yenn jëfin yi rek moo gën a jéggi dayoo waaye jéggi xaay bee wuute yow sa jéggi xaay bi fa lay yàqal sa àdduna boo ko bawut kale la ci góor ñu baax ñi yàq communauté bi it jàngal leen sañ ak caga yow boo duwut caga it ñoom fañ koy def te man ñoom mën nañ cee joxee do caga oytu ko ngir yàlla resoolu laay oytu ko sista jawara jawara vidéo jarul lii àdduna yenn sañ yi ñuy def ak yenn matte yi nattu la community bii fañ naa fekk te soxot comme ni ma la ko waxee man bi ma dindee vidéo alpha bi ak vidéo fausse lady bi ma ne li ma si wax fa jéggi dayoo te hëpp nit ña ñëw ne ma bu ko dindi looy waxee soori la koy dindee def ko nga def ko waaye bul jaay ñàkk fayda nit ñi fañ soxot te naa fekk de boo leen toppee doo def lu baax saa woo buggee wëññeeku ci li ngay def ñu ne la bu ko bul wëññeeku ñëwal is good bul nit ñi taf fa ñuy naaf fekk te soxon ñoom nañ jóg def ko te su fekkee fa koy def kon bu ko topp fa koy def moo tax bëggul nga ba ko yaa ngi mu mayam su fekkee defu ko na jóg def ko fii nit ñi lay wax ne acca ñëpp duñ ko def for exemple tey xam na benn jigéeni tubaab boo xam ne ibaadu la benn jigéeni jullit bu ne Amérique tey fa doon def live vidéo ma dugg si live vidéo bi di comment mu ne muy wax nitan ñu ne dem leen follow ami ami def def vidéo yu neex di di lekk di comédie muslim man la bu bu a neex Scotland la dëkk waaye africaine la nanga nanga pour nit ñi follow ma déglu de ma ne ko waaw waaye man léegi maa bàyyi di lekk live fañ ma ko xaaye suma ma follow aussi fañ ma ko yàgg xaaye ma të waaye maa ne xaar ma jàpp si yàlla te déglu leen mu ne ma noo doon listen to follow te moom ci boppam duy lekk live jigéen ja gis naa ko buy naan ndox sa fee laq ci caméra bi nii ak ndox mi naan dikkaat def nii ma di ko gis buur ba tey naa koo gis live vidéo buy naan ndox sa làqu nii naan <laughs> ah. ba pare ne man mu ne ma I like watching it bu gën naa di la seet ngay def loolu I love it is good def ko bu ko bul déglu nit ñi ma bugg koo wane ko waaye yow lu tax booy naan ndox sax di làqu caméra bi kon waaye ma ne ah xaaral ba ko balaa ma wax ne ma koy xas <laughs> gis nga ko gis nit ñi niñ mel xëj na yëgul sax ne man yëgu ko xëj na waxeewu ko noonu ndax fa soxot oo whatever you know waaye xëj na yëgul ne man maa ngi wax ami mu def loo xam ne man duma ko def yëgeewu ko noonu man jegee naa ko noonu ndax gis naa ko buy naan ndox sax fay làqu nii jël ndox mi làqu naan di dikkaat nii te masta teg boolam maalo yooyu di dank ci vidéo yi wax gis naa ko ab tubaab ak ibaadu la gis naa ko léegi mu ne man bugg na man ma di ko def moom c'est like it man lu tax may déglu nit ñi lu tax ma ba ko te moom bët bu set mu ci vidéo yi fay def vidéo eight hours seven hours mu ngi def vidéo waaye doo ko gém mu ko di lekk ci vidéo bi suy lekk fay làqu nii naan buy tii lay naan sax café fay làqu nii naan ko dikkaat ci caméra bi def nii mu ne man naa nekk di lekk ne may lekkee ci vidéo yi moom xil si loofit bu ma déglu nit ñi waaye moom du ko de nit ñi fañ lay wax koo xam ne wax na la ne li ngay def is good I love it wala ngay jàngale wala nangam te moom du ko def moytu ko koo xam ne fa koy defit mbala muy def lu raw loolu moytu ko moytul ñaar yi moytu ko moytu ko buy vidéo on not moytul ñaar yi moytul ku lay wax ne defal nangam te nangam ba du ko def boo ko fayul ay junni sax moytul ko xam ne def lu la ba pare ne la ñëwal ñu def ko moytul ñaar yooyu ñaar yooyu ñooy sa ennemi ñoom ñaar ñëpp baaxuñ baaxuñ ci yow mbala xamuñ nu ñuy baaxee ci yow gi nga nit ki booy def loo xam ne baaxut sax su ko nit di def nga koy xaaye man tey su ma yenn vidéo ba tey vidéo bu ma def maak Alpha noonu bu yàggul sax Alpha vidéo bu bon bu mu def ba ma di ma ñëw xëyu ko tey su ma gisoon ni ku koy dem ma koy xaaye du ma gënal waxuma laa continuer di ko def di wax maa tey gi nga man maa yar sama bopp ci communauté bi vidéo politique yi ma daan def ak yeneen savage vidéo yi kenn waxut ma ne Ami Diop ba ko de yooyu yooyu yotuñ ko woon suma yaay sax maa ko xool seetaan suma vidéo yi bopp yi xool communauté bi seen vidéo yu bon yi xool communauté bi ni nit ñi commencé ni nit ñi di ma di ma koolee aka di ma wax naan ma li nga def baax na li nga wax diw baax na li nga wax président bi wala li nga wax first lady wala li nga wax daabo ma ne nit ñi lee bon su ma defee vidéo yu baax duñ may kool ne ma li nga def baax na ma def vidéo boo xam ne man mi ko man mi ko def sama koy seetaan di rus naan he lii de waruma cee de waruma ko de beneen yoon war naa moytu de he lii sama doom bu ko defoon du ma neex sama dooy mag bu ko defoon du ma neex loolu laa de wax sama bopp man de man saa wu ma defee vidéo bu ma waxta def ma koy seetaan xas suma bopp moytu beneen yoon moo tax nga gis xat yi may gën a wecci ci vidéo politique yi yooyu yi ma daan def te mu tax xaw a jéggi dayo comme maanaam wax président bi nangam wala nangam du ma dee saaga bot yi noo xam nga sama làmmiñ mhm. waaye nit ñi fañ lay kontaan ree bay seben nit ñi dee loofit nit ñi dee soo iivul jànqa oytul nit ñi nit ñi seetaan du ñëpp waaye ñenn yi am na ci ñeen ñenn ñu baax nag ñoo xam ne ñun duñ leen di déglu man nag dama dee taraay di déglu de ku foog ni Ami Diop duy déglu ngaa dof ndax man xam naa ni tey su ma wétee ba xamee sama internet naan maa tey ëllëg yàlla man na maa dem a xopp ba nit ñi war maa toggal pepp ak diw mbala ma deene las nit ñi war maa sang suuli ma di nit ñi may ñaawal nii mbala ñu war maa góofoon mi su ma niw dem Gambie mbala jas nga soxla nit ñi nit ñi loolu lu tax nga ne soxla woo leen doo leen déglu ak yaa soxla nit ñi vidéo sax boo ko defee nit ñee nga def ko rab yi taxuñ waaye nit ñi lay wax dëgg gi waxuma ñuy saaga ñooñ fay yabaate te dog xaj waaye nit ñi wax dëgg gi yéen ñii del xalaat liñ la wax soo tëddee nga xalaat ko te déglu leen ndax ñoom ñoo lay gis ñoo xam li ngay def te ñoom ragaluñ la sa yeneen xariti naa fekk yi lay ragal wala nga xam mbokk mu ragal la wala yooyu fa teeg ñoom déglu leen duut ñëpp a lay bañ de man de danaa déglu nit ñi ku wax ne du may déglu nit ñi ngay fen te nga xamul ami jo man danaay déglu nit ñi de te nit ñi ma xam ne su ma defee lu bon ñu ne ma is guut dama leen dee ragal te di leen moytu te wax sama bopp ne ok kii li may wax ne is guut ndax moom boo ko fayoon ay junni dana ko def ndax bu ko doomam doon def dana ko neex wala lan ndax man bu ko suma doon doon def dana ma neex kon lii is not guut kii fa soxot te bañ ma mbala mu dof noonu laa koy waxee sama bopp ba pare ba ko fa ñuy mer fii nit ñi man ba ma ba ma dindee vidéo foofu la di bu ma def bu yàggul nii ak vidéo kii bii nu mu tuddati kii bii alpha bii faam ak góor soose gu ma kool barke salaatu ya naan ma ami mu ne yaati ne wo vidéo bondi wo foos leydi vidéo anin alpha yeñin vidéo ɗo ke ka fo ko ite you are sorry ite you are healing ite you, you, you alpha like that Ikakele Molie Yabu. That's good. And that fourth lady video is very good. I love it. Every day I come from work, I watch it. I laugh so much. Dengago. <laughs> Next <laughs> mu ne ma ami yow lu tax vidéo bi nga defal first lady bi ak vidéo bi nga defal alpha fan yi nga dindi ko xam nga ma ko defoon YouTube ma dindi ko nit ñi di ñëw di ko seetaan ba YouTube commencé di ma fay xaalis ngir vidéo yooyu nit ñi nuñ bëggee lu bon boo leen toppee sista billahi nit ñi ku leen topp da nga dee te da nga yàq communauté bi te da yàq sa bopp yàqal sa bopp sa àdduna tardeel sa bopp ba ma dindee vidéo vidéo post la di ba ak xam ay view thousands of view YouTube commencé di ma fay nga gis YouTube xaalis bi di yéeg xaalis YouTube bi di yéeg ma def vidéo problème bi ma xam ak góor gii xaalis YouTube ba di yéeg te su ma ko fa wëccoon ba tey xaalis bi fay gën a yéeg bët bu seet nit ñi di ko seetaan di togg añ yeneen góor ñu soxon ñi mel ni góor ak soose gi ma xool noonu bu wàccee liggéey di seetaan di ree xaalis ba di ma ba ma nee ah xaaral ma bali ndax man may ñëw di jàngal nit ñi faj métit di jàngal nit ñi ñu def seen bopp nit kon su ma ñëwee di indi problème yi di jàngal nit ñi jikkoy xaj jile fu ma jëm man del di dindi jël vidéo private ko yëpp cancel ko kenn du ko mën a góor ak soose xaw fu mu jëlee suma numéro ak góor ak soose gu ne jamono billahi wër kitaab bi su ma fene yàlla ma yegg fu may dem yàlla na boos bi këppoog man mbala mboolem lu may wut ci àddina yàlla bu ma ko xam tout su ma fenee góor ak soose gii fa ma koo xam fu mu jëlee suma numéro suma namba ne ma Ami Jobe lu tax nga dindi vidéo bi nga defal Fort Lady bi nga defal Fort Lady bi ak amat Guité seen problème bi lu tax nga dindi vidéo bi nga ci def ak lu tax nga ñëw di wax naan yow ngay xiil ngay faj sa métit wi moo tax nga yow nga wax ak alfaa ni nga waxeek moom waroo ko wax ak moom nga wax ak moom waxi métit sañi xamadi gi Alpha def moom nga def moo tax nga wax noonu waaye li nga wax fa ëpp yow soori lu tax ngay wax loolu xoolal loolu rek ko koy xaaye nit ku wét dana xaaye nit loolu magam jëmm te xam xuur na ma ne góor ga mu nga amee njaboot mu ne lu tax man ma wax communauté bi ne jéggal leen ma ni ma wax ak Alpha waruma koo waxee ak moom Alpha fa wax wax ju hëpp communauté bi yëpp la ko wax man ak ñeneen ñu jóg wax ak moom man ni ma waxee moom it fa hëpp jéggal leen ma waaye alfaa yelloo na ko waaye ba tey man maa ko warutoon a topp xam nga loolu waxi nit la ak waxi ku dëgg ak wax ju baax foog naa ko moo tax ma wax sama bopp dëgg nañ waxante dëgg rek de ma ne man xaw ma ennemi ennemi bu may ree ngaa xam jot man nag vidéo yi di lii di naa leen lifin private naa ko te yéen bu leen ma bu leen defati vidéo ngir man di saagaante ndey ak continuer ci xay wi ngir yàlla nañ leen ko ba kuy kool nit ne ko dindi delloo xal vidéo yooyu bu leen cancel bul wax li nga wax kooka ku wét la wala ku dof la ak góor ak soose call ma from Germany ma génn numéro bi mu ne Germany ma ne kii kumdo góor gi di wax ma xas yaa ngi tuutil sa bopp ci askan wi nit ñi fañ lay yàpp nga ñëw di balu ci li ñàkk da defoo dara li nga wax baax na is good I love it yow First Lady bi li nga ko wax sax is good bul bul dindi vidéo yooyu delloo ko saa wu ne su ma wàccee liggéey ma koy seetaan di ree is good déedéet I don't do it money ma lay wax ne la su ma ko doon def pour money duma ko dindi te konoon every day ma def vidéo yu mel noonu du ko raw moo tax ma mention la ci money pour nga xam ne YouTube soo fa defee vidéo muy xam view te vidéo bi xam aat dangay ngay xam xaalis foofu waaye su ma ko doon def ngir xaalis everyday maa ngi dal ci kaw First Lady bi everyday maa ngi dal ci Lawyer Darboe dal ci ñeneen problème bu génn rek ma dal ca wax wax ju sañ ju soxot et puis mbiri Sénégal sax su ma doon xut xaalis noonu laay def gisoo nit ñi nga xam ne problème bu génn rek ñu dal ci YouTube fañ koy def pour xaalis ndax nit ñi problème rek la ñuy déglu boo ñëwee di leen wax jàmm ne nañ leen faj suñ bopp nañ leen def nangam nañ leen gëm suñ bopp duñ la faale boo ñëwee def vidéo problème gisoo YouTube sénégalais yi def vidéo problème noonu la even Gambian community bi di seen fii sax noonu la vidéo problème rek la nit ñi di déglu ak vidéo xaste ak savage ak waxi sañ moo tax nit ñi yëpp YouTube ak fii ñu ngi def vidéo yooyu community bi ñaari façon vidéo yi la ñuy déglu vidéo problème ak xaste wala vidéo yi laalante waxi yu bon ñaar rek mooy tax ñu déglu la ñaar yi képp nothing else ñaar yi képp xam naa ko oustaz sax boo ko doxee fa xam yenn wax yooyu wax wenn yenn savage yenn say yenn yenn sañ savage wala gaaruxaale wala something pour nit ñi déglu la waaye oustaz bu ne straight rek di waare ci jàmm loolu sax duñ ko dégg waxuma la leneen community bi fañ feebar man su ma leen doon topp ngir xaalis konoon xam naa ay ay million ci community bi because man xam naa YouTube gis naa YouTube façon vidéo yi ngay def pour nit ñi seetaan la te man bëri naa wax te sañ naa macha allah xam naa ko comme ñeneen ñi bëri wax te sañ maay seen champion xam naa ko su fekkoon xaalis moo tax may def vidéo ni konoon du ma nekk TikTok di wax sax every day maa ngi upload vidéo on YouTube vidéo yu savage yu sañ gis naa ko xam na time dama daan def Gambia kooreen affaire bu ma commencé YouTube yees su dara xewee ba ma ba ma wax ko waxi sañ ak saabej nu vidéo boobu di demee viral fa wuuteeg su dara xewee sax nga wax ko ci jàmm boo ko waxee si jàmm duñ séddoo vidéo bi sax nga wax ko waxi sañ ak xaste ñu séddoo vidéo ba jox ko kële kële jox ko kële kële jox ko kële ñu toog di naan ataay di xaqataay di ree di xas di la xas yow ba pare di kontaan ca ka ngay xas bu dee bëgguñ koo ko nga community bii dafa dund métit fa xamoo jikkoom doo xam jàmm yow ci sa bopp yow muy wax ngay xam jikkoom communauté bi dafa dund métit te soxo te sañ te bon nit ñi ci bëri fañ xamee jikkooy métit nit ñiy seetaan ñoo raw nit ñiy wax fañ ñemewul caméra rek boo leen toppee danañ la jay ba nga xalku yàq communauté bi gàddu xaq yu bari bu dee ngay wax ci deri nit ñi ci ci ci biri nit ñi lu bon di saaga nit ñi ka xaste yénoo da nga xamee xaq ba feebar bañ di la toggal pepp ak diw ba la nga dee fàtta xàq fay reye aka hoppal nit aka tege ay musiba xàq fa koy def foog naa léegi ma yegg fa may dem de communauté bi fa sibbutu te gëmut boppam te soxot te yabaate te bañ nit moo tax façon ngi vidéo yooyu la ñuy bugg vidéo yoo xam ne boo leen fayoon ay junni ñoom ci seen bopp xoj leen fay leen ay junni ba pare di ne leen ñu wax mbaa ñu dee duñ ko def façon ngi vidéo yooyu nag lañ lay wax ne yow nga def ko te seen doom ju ko doon def ñu xaru bañ dog xaj lu tax ñu dem ñu bugg nga def ko seen doom ju ko doon def ñu xaru parce que réalité man nag maa ngi dakkal vidéo bi léegi ma yegg fi may dem te xaw ma fi may dem ma may kool su ma wàccee nañ leen def suñ bopp nit te oytu communauté bii ñun ñuy wax ak ku bugg a jóg wax xamal communauté bii na ngay defeek ñoom boo leen toppee vidéo bu bon boo koy def soo paree ñu kol la di ree rey nga ma tey bi nga waxee nangam rey nga ma <laughs> tey nii man may tiit buñ ma defee noonu de at yi yëpp saa ma ko defee ma tiit gën a yar suma bopp tax xam ne bu ma kafee borom ree sax suma paree may teg téléphone bi te tiit ne xaw kii moo soxot lii doomam ju ko doon def mu xaru te moom ci boppam du ko def boo ko fayoon ay junni mu war maa wax ne ami jóobul defati lii mu ñëw di ko célébrer di kontaan fas soxot te bañ nit ka may waxal ka may wax mbiram te bëggumaa yuus man dox bi may xas kooka duma ko def boo waxee waxi caay caayit wala nga def vidéo savage yi du yoo xam ne fa inapproprié te yàq sa bopp yàq communauté bi te ñoom boo leen fayoon ay million di leen xoj duñ ko def ñu ne la is good xam nga sa affaire yow rek a baax si nit ñi dañ waane luñ laa waxee defal lu la neex it's your life fii kenn génnu fii kenn ku nekk si bu gudda yaa si bu gaata fa ñuy fen dafañ soxot na fekk dafa ñuy fen seen doom ju ko doon def du leen neex danañ ci ne di wax doom janaan bu gudd bu gàtt bu digg doom xanaa booba leen ñàkk pexe loolu waxee ñàkk pexe la ay bu gudd bu gàtt ni koñ jaale loolu waxee ñàkk pexe la waaye yaatu gudd gàtt su dee yow xam nga choose choice pour choose lu baax nga choose ko looy choose ay gudd ak gàtt juusal yu baax rek xam nga choice gudd gàtt mooy ku ñàkk choice ku xamul pexe moo koy cuus yow xam nga pexe looy cuusee gudd ak gàtt ak diggu doomu fañ xal ku te boo leen toppee ñu xalak la man nag maa ngay dem si ta jawara jawara jéggal ma ngir yàlla vidéo bi comme ni ma la ko waxee du pour yow pour communauté bi ñun ñëpp ñu jàngee si la ak man mii yow soo gisee ma ñemee génn defal la vidéo yow yaa génn wax ne nit góor a gàmbeen nga ne xaloon noonu di jéem a xamante ak moom di jéem a bugg a sëy ak moom ak yooyu fala góor gu bon la taj taj cagataay dal ko nga ñëw wax ko ci sa vidéo bi ñaari vidéo nga def ko fan yi bërki démb ak démb nag xaw ma démb la waaw moo tax ma xam fit ba ñëw di wax lii pour dimbale la yow ak ñun ñëpp danaa def beneen vidéo beneen yoon boo xam ne du ma la si tudd sax focus ci góor ñuy jàmbu jigéen ak di leen toroxal nattu bi leen yàlla di teg ak ni ñuy yàqee communauté bi ak ni ñu duggee xaj danaa ci def vidéo beneen yoon loolu ci laa dëkk anyway ci loolu laa dëkk déggoo ko yow fi ne nga ne pare nga ci góor lii fay tax jigéen ñi ragal a sëy te xàq jigéen ñi fañ leen di dal bul pare si góor kon nga ñàkk fayda ku ko gën danga ko xam weccil sa toogaay ci internet bi rek la ko waxut bu gudd la bul xaaja pare si góor man góor guy tax ma pare si góor góor googu du juddu man Ami jóob fekk xaw ma góor gi ma yelloo du ma ba danaa sëy at ren gi incha léegi du yàgg sax suma ma danaa dikk na leen Ami Diop sëy na du ma ba góor kon ñu jaale góor ñi góor góor ñi góor yi àddina bi yëpp tout fañ leen di jaale ma ma soog ba góor lu tax may ba góor góor ni mu neexee te baax moos du ma ko ba xam na góor ñu baax taxawal ba ba leen te def sa bopp nit danga leen xam tey taraay ku ne nga taraay ba di you bu doxul nga jàpp ci yàlla taraay fe ba ngay xamee du ko ne everybody but you know bul gedd waaye ngay gedd góor ga kon maam fayda moom mu yàqal la pare moom muy enjoy di ñi di leen yéeg yow nga gedd kële ñu sàngu nooy de di jéem a jéem a bégal sa bopp ak a def yëpp subhanallah jaru ko jàppal si yàlla te wutaat jëkkat danga ko xam waaye fu jar jaar nga wecc sa yenn wax yeeg sa yenn jëfin yi soo buggee góor gu baax ci communauté bii ku la ko waxut bu gudd la te fay fenta sa ennemi la te ku la wax ne Ami Diop warulaa defal vidéo bi ndanga ndanga fay fenn ndax xam na ne yow ñëw nga wax li nga li la métti ci sa ci sa vidéo bi nit ñi gis ko kon nag nit ñi danañ si wax ndax nit ñi fañ la bugg nit ñi duñ ko ignore noonu nga ñëw wax bay jooy wax li leen naqadi ah yàgg ci vidéo bi di wax di jooy man maa ngi fa woon di comment naan la doon woori ak ñeneen ak ñeneen kon ñu suñ ignoré defuñ ci vidéo waxuñ ci kanaa kon bëgguñ la ku ci def vidéo naaf tëq aka di la jay fay fen vidéo bii mooy vidéo bu xam fayda bi nga xam ne moom mooy moom nga soxlaa dégg ci problème bii waaw man nag maa ngay dem vidéo bi danaa ko def ci suma youtube ba <laughs> tubaab yi xam naa may dégg ay yenn yenn tubaab ba ca kanam ko lee <laughs> boo si moo tax may wax li may wax <laughs> léegi def vidéo bi ci sama youtube ba soo ko gisul fi ne nii nit ñi danañ la ko wax nga dem seeti ko foofu danga ko gis lii yow ak man ak ñun ñëpp a ci war a jàng li la dal nii feeg yaa ngi def sa yenn fecc yi ak sa yenn vidéo yi Sista Jawara Jawara góor gu baax ci communauté bi du la ñeme góor gu baax in général moo lay ragal rek surtout nit surtout góor gu baax yi bi ku la ko waxut fay fen fay fen surtout góor gu baax goo xam ne fa dog gu ne nga bugg ko mu bugg la sa maas la xanaa góor gu baax gu màggat gu am xaalis loolu doo góor gu baax de loolu mooy góor goo xam ne nga koy topp góor góor digga nga di di topp nit xanaa jigéen ñiy def noonu te yow foog naa meloo noonu yaa ngi mën a nga bëgg dee ngaa bëgg ab tubaab boo xam ne wala keneen koo xam fa noboo ko te fa am fa am xalal waaye noboo ko ah kooku kay mën nga koo xam ndax façon yooyu jigéen ju doggu ne te gëmut boppam moom la ñuy ñu di ko yuus yaramam wa yaram wa lañ soxla yow it xalal ja nga soxla xanaa loolu waaye góor goo xam ne sa moroom lay war a doon nii you know nga nga bugganteeg moom nii naay sëy nii fa lay ragal ci suñ communauté bi ak ifin tubaab yee yeneen xeet yi sax suñ gis ni ngay waxee ba nit ñay cot coti nga naan leen xam naa seen nangam baa ngi taxaw kay acca leen di gën a wax ñuy taxawal ngay gën a wax ñuy taxawal di cot coti ngay gën a wax rek ci ngelaw xaw loolu fa jéggi dayoo nañ waxante dëgg ku la ko waxut fa naa fekkata bañ la te communauté bi yëppay jaaxle di wax ne kii xanaa yaayam duy gis vidéo yi walla lan ñëpp a koy jaxle di ko wax man nag maa ngay dem oytu ko soo koy oytu da nga xam ku baax ku nga yelloot incha allah jàppal yi si yàlla danga ko xam toog sëy ku la gis xam ne jigéen ju baax nga tam mën a sëy te sawar te macha allah good luck tu yow ak man ak ñun ñëpp vidéo bi ay miin noo xam sama xol bi laa ko jëlee asa yomb pour ma def ko man nag sama gémmi yàgg na maa dugal de mm-hmm. advice sama gémmi yàgg na maa dugal waaye yàlla baax na incha allah ay hope ne doo ko gisee négatif man nag maa ngay dem jërë ngeen jëf xendu leen jàmm incha allah yal nañu yàlla may jàmm may ñu lu baax li ñu wut ci àdduna yëpp yal nañu yàlla def ñu wecci suñ bopp ndax yàlla ñu mën a wecc communauté bi ak ndax yàlla ñu mën a xam yu baax yi ñu yelloon man ak ñëpp incha allah yàlla baax na yëpp dina baax ok guys parce que kanam bye